Euh, muy lu am solo ci nag parce que màggal gi yëfi ñëpp la euh, liñ ci war a dugal ci ressources humaines ak ci ressources financières ak matériel souvent bu ñu bàyyoon ñun sant rek duñ ko matal at mu jot euh, ñii ñëw ci màggal gi bëgg ñoo jàppale dañu bari souvent dañu ñëw ak seen i besoins yoo xam ne duñ ko mën a régler loolu nag day indi parfois des problèmes parce que dañu ñëw bu fii am na ci ñoo xam ne duñ leen man am fu ñu leen affecté am na ñoo xam ne aussi duñu am li ci gën a e, fës mooy école yi nga xam ne dañuy jàppale dañuy indil parfois ay élèves yoo xam ne amaguñ boobu capacité ay étudiants yoo xam ne peut-être du nekkuñ fin de cycle yoo xam ne bu ñu ñëwee duñ leen mën a utiliser parce que duñ mën a defagul consultation yu mel noonu euh, gis nañu aussi comme problème bi euh, PMA yi mooy poste médico avancé chaque année day day yokk ndax chaque année euh, moo xam sëriñ si wala ONG yi dañu bëgg a defar seen PMA te loolu yëpp duñ ko mën a assurer. dañ koo yaatu waxtaan nañ nag lu bëri ci wàllu communication màggal gi ren nawet lay doon daaw sax du woon nawet waaye amoon na mu ci doon dégg muy déng waaye yàlla sutural nañu ba nga xam ne géré nañ ko ba amul benn tolof waaye ren it ñu ngi dugg ci nawet euh, feebar yu bari da ci xew ñu bëggoon communiquer bu baax a baax sensibiliser leen ba nga xam ne képp koo xam ne buy ñëw dina ko fàggu waaye bu gisee feebar bu mel noonu aussi mën ko communiquer comme ça ñu mën ko gaaw fàggal wàllu transport ñu ngi ci doon waxtaan di ci waxtaan ak euh, ñu yor bureau communication ci région yi muy BREPS yi pour ñu élaborer ay spot ak defar ay messages yoo xam ne dañ ciy liggéey ak waa sécurité routière ak force de sécurité yi pour sensibiliser ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo tali bi ñu gën a am dal gën a respecté tam code de la route bi ndax gis nañ ci suñ biir liggéey que yu bari ci ay tolof tolof day am ci tali bi di ñëw di daanu suñu kaw ndax euh, su xasee am accident daanaka service de santé yi ñooy gérer pots kase yi maanaam ñooy taxawu nit ñi te léeg-léeg accident la yoo xam ne mën nañ ko prévenir ndax lu ci ëpp soit ay problème mu euh, ku sonn di dawal wala gëmmentu di dawal wala ñàkk respecter vite limitation de vitesse wala di dépasser ci ay ligne continue wala même nga def surnombre sa pono toj euh, mu indi problème yooyu yëpp ñu ngi ciy def ay message dina am ay émission tam yu def ci rajo yi ànd ci ak sécurité routière ak tamit force de sécurité yi pour gën a sensibiliser nit ñi xamal leen ñun li ñu gis ci tali bi te muy teersee ci suñu structure santé yi donc loolu am nañ yaakaar ne fii ba màggal bi di ñëw dinañ ci gën a ñaax nit ñi ngir tali bi bañ a indi benn tolof tolof